bismillah min shaytaan rajim bismillahi rahmaan rahim bismillah inna waliyallah ma tawfiqi illa billah dinaa buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaat Sëriñ Tuubaa Mbàkke mi sunu yaakaari tey ak ëllëg yeesalaat bu baax sunu jébbal ci Cheikh Massamba muy sunu buntu ci Sëriñ Tuubaa ñoo ngi leen nuyu nuyoob jullit ak moromu jullitam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu delluwaat di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xalaxal mawta wala ayaata yàlla dafa bind dee ba noppi door a bind dund kullu nafsin saayaxatil mawti bakkan bi mos dund rek dina mos dee suñu atu nag doonoon na jëmm joo xam ne jeexaloon na tàkk ak dundam ci jaamu yàlla jeexaloon na tàkk ak dundam ci julli dundal sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeexaloon na tàkk ak dundam ci liggéeyal Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasool mu doonoon jëmm joo xam ne mën nañ ne tey jii naqar la fi bàyyee waaye bàyyiwu fi gàcce ndax moom gàcce ngaalaama liggéeyal na Serigne Touba liggéey bu rëy bu set bu sell te warut ay xaritam naxut ay àndandoom liggéeyal na ko ci ngor ci lu ngor gu sell ak jullit ak yaram liggéeyal ko ci alxuraan karim liggéeyal ko ci xasida yi liggéeyal ko ci gëm boppam liggéeyal na ko ci ak sell liggéeyal ko ci defar ndaw ñi tàggat leen ba kenn képp ku leen gis rek nga bëgg a nekk Murid Saade képp ku gis waa Hizbut Tarqiyyah da ngay bëgg a nekk murid bari na ñu bari ñu dugg ci yoonu murid te image Hizbut Tarqiyyah moo leen duggal ci murid te loolu grâce sëñ sëñ Atou Diagne tey nag moom mën nañ ne lislaam ñàkk na yoonu murid ñàkk na waa ahlu kafe ñàkk nañ ñàkk nañ suñu càmme ñàkk nañ suñu xarit ndax moom de dafa déggoon li alxuraan wax inal muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'minaati ba ay ba jeex ndax mu xam ne yàlla lépp lu mu sant góor rek sant na ko jigéen lu mu dig góor dig na ko jigéen ba aaya bay jeexit la mu leen dig da leen ko boole mu delluwaatam doon ma xoole bët boo xam ne li alxuraan wax ne ar-rijaalu xawamu ala nisaay xam na jigéen moom faaw rek dañ koy dimbali ndax xam na ne man jigéen laa te bu doonte benn atit moom ma ko mage waaye ubbiloon na ma boppam maa ngi fàttaliku ndogul tubaab biñ ko def sedde ma ko tama def ak kër sëñ tubaab résidence bi jàkkaarloog jumaa ji keroog bañ ko defee ba ngoon Mourtala Seye dañ ma wuyul sëñ aatu ma wuyu ko téléphone mu soxna maa sa fas fasante woon na ma ak yow kóllëre sa bisub tay bii yokku na ma fasante ak yow kóllëre ñaanatuma yàlla def lenn ci àdduna te ànduma ko ak yow ñaanatuma yàlla liggéey benn liggéey fu ma teew si liggéey bi sëriñ Tuubaa bi te ànduma ko ak yow ndax xam na ni jàng xasida ak naan café dafa bokk ci mandarga mu yoonu murit mu ne ñaanantuma yàlla ñuy jàng xasida yi te wa sa kuréel gi xelluwuñ ko kafe gi yemul te loolu dafa jël organisation bépp jox ñu lépp lu ñuy séddale rek bu buñ ko gisee bu ñu agsee ñoom dem nañ jox ñu ko ñu séddale ba ci machine kafe bi nga xam ne dafa yéem ñëpp saa buñ ko taalee rek ñun ñooy ñëw suñu waa kër yi ñëw monté sama waa kër def lépp waa Hizbut Tarqiyyah duñ fa jeg xool googu ngor xool googu jullit xool googu yaaram ba bis boobu passé mu woo ma téléphone ni ma a bëgg nga ñëw visité daara di ma won la li maam am wonu ma boppam de wallaahi alxasim wonu ma boppam fii lañ ko fekk moog délégation bi sëñ Yuuf sëñ Mourtala sëñ ñu war a àndal ñëpp ñu teeru ma teeru bu rafet mel ni kuy teeru kilifa gu mag ca man xam ngeen ne man du ma dara mm. simple jigéen rek laa ba ma teeroo ba ma wàcc mu dalal ma tatagal ma dafa ànd ak man dem ca jumaa ja la ma njëkk a ubbil ma ngi koy tooñ naan ko defoon naa ne décoration yi rafet yi defoon naa ne décoration yi rafet yi de jumaay Tuubaa rek la am yow de danga maa nëbb sa bopp mu ne ma tey dama lay woon man ne man awuma dara li sa maam moo am laa lay woon biñ xoolee jumaa ji ba noppi bi génne si jàngu ba lañ dugg mu wax ma matière yañ fay jàng wax ma lijaasa ya fa mën a mën a génne daara yi kawe ba ci daara yu diggu doom yi ma yéem a ne ko kon daara ji lii rek am na ci mun ma waa bañ fa jogee yóbbu na mu ca résidence bi wan na ma meuble yi fa nekk yëpp wan na ma li mu jëndal sëñ Tuubaa am na ci meuble yoo xam ba mu koy jënd lu Atlanta ba mu yónnee xaalis ba fa la ma fekk ka ko doon jënd maag moom ñoo àndoon ma koy tàndal bagage koo keroog jokkoon na maag moom téléphone mu ni leen samay nit ngeen da ngeen ma jàppal soxna maa sa ba Atlanta tey cër bu ma fa am ci ñoom rek sëñ aat moo yokk loolu mm-hmm. bañ jógee ca meuble fii lañ ñëw fii ñu taxaw tey ji mu won ma télévision bi won ma matériel bi bañ ca paree daf maa dem bureau bi ubbil ma ordinateur xam nga ne ak mbaax ak ak tabe mënut a passé loolu li ma soxna maam si tey dama lay woon li ma am lépp dinaa la ko woon tey ubbil ma ordinateur bi ma mu joti woon tool yi Risaato dañ fay dem waaye lii tool yi ceeb yi la lii poulailler la lii ñoo ko am ngir di ko liggéeyale sama am mm-hmm. waaye yow lii dara jomb la ci dama la koy woon pour nga am ko. xam nga ak tabe ak mbaax mun a passé lool suñ kon suñu aadama dese la duma dara ba muy dem bañ noppee fii lañ lal ci ëtt bi sëñ Youssou ñëw sañ Moutalla Seye yéen ñi ñëpp ngeen teef rajo bi ñëw journaliste yi ñëw ñu def fi débat bu am solo moom moo njëkk a ubbi jox sëñ Youssou ñëpp wax xale yi dalal ma ci arab luqatil ya ma noppi ma jël kàddu bi jël bu may dem dañoo ànd di ma gunge ba ci buntu kër bi ak télévision bi yëkkati xaalis bu bari jox ma li ma waxoon léegi rek arrijaalu xawwaamu alal nisa sëñ aada mosuma gis mu yëkkatu ci alali boppam jox ma ni ma dolli ko ci liggéey kon man tey jii man maa ñàkk yéen moom ñàkku leen man maa ñàkk bis bañ ma ko waxee loolu ba ma tëdd jóguma fi ma tey jii laay door a mën a taxaw ndax bett gu ma bett sëñ aada daaw jéeg laa ko jëg ndax daaw ndogo yi amut daaw jéeg dañuy rek a tase fi buntu ko sëñ tubaaj ma jëm jumaa ja ma jëm si ci ndogo yi ma namoon nañ la na ma damaa demoon tir ka xaw ma xatar nekkuma fi woon waaye soxna maa isa namm naa la de ma ne ko ñoo la raw yow nag ñoo wéetal mënu ma mbaa doo ma bàyyi ma ne ko bàyyi mu ne ma na nga ma jàpp de ngir sëñ Tuubaa ma nga ca dëkk maa ngi ci fen soxna maa isa jàpp ma ma ne ko ku mel ni yow ku koy jàpp di ko bàyyi ndax ku yow ku la jàpp jàpp na sëriñ Tuubaa ku la bàyyi bàyyi na sëriñ Tuubaa di su kàddu yooyu laa mujj jokkalanteeg sëñ aatu ci kaw suuf ba tey yi muy ji boromam ah, jërëjëf yéen wane ngeen ko. jërëjëf na ngeen ko laajte tey daf maa daaneel damaa daf dañ dañ yuusu man maa war a ñëw man ma waa si parce que ñëpp dañ daa war a jaay. dëgg la fekk jaay xam nga loolu dafa doy